3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c'est bon Siteu ak Thiatou Bambey nun Thiatou Bambey nu woon ginnaaw Siteu ak Thiatou Bambey par Mounia Production Siteu écurie Jàmbaar de Dakar Caatu Bambey écurie Jàmbaar de Dakar Siteu Pape Diop Siteu bu Pape ngay door Caatu Bambey ay waay journée organisée par Mounia Production i ci journée Iba Mar Diop le 7 juillet 2019 Siteu ngay rokos ci suuf mu ngi door ay hypercule mu ngi door ay hypercule attention Siteu dafa jàpp Thiatou Bambey jàppagul attention Siteu jege nga saako yi ah Thiatou Bambey mu koy jéem a takk ndax dana sotti ndax dana sotti sotti Siteu ak Bambey Siteu ak Thiatou Bambey ah Siteu ngay dóor mu ngay rokos ah attention kawo mbaa du am Siteu boo génnee saako yi dañ ah mu koy mboot ah ah arbitre sifflé na attention Siteu ak Thiatou Bambey eh Thiatou jël na tànk ba Siteu ngi koy rokos eh Siteu lu muy def ni da ko bëgg bañ na mu ngay door Siteu am na ngemb loxol gauche Siteu jàpp na ca ngembal caatu Bambey caatu Bambey jàmbaar bu yaraax moomoo maa sama chauffeur bopp maa koy nuyu eh moomoo xele ba crochet na loxo ba crochet na loxo ba la am léegi moo amaat Rose Lafleur di am léegi moo amaat même jàppante bi la amagul wuute. waaw biram ñu ngi fi mu ne nii ñaari mbër yëpp dañoo dëggal seen bopp ñu ngi bëri bëri suuf. jàppante nañ ca kaw xoolal sërëxal na benn hypercule yooyu de moom day doy waar hypercule ya ca gémmañ ca lay dal joxente nañu wet 16 xëj na fi moom amaane daf na ko caatu Bambey moo nu woon ginnaaw feete suñu càmmoñ ki jàkkaarloog ñun gën a feete suñu ndeyjoor di Siteu bu écurie Pape Diop njool ak Ndama dégg naa Ndama yegul njool dëgg la ndaama biram ñing est-ce que njool na ndaam njool faalewul ndaam eh, dëgg waaye njool ak ndaama bu ñuy bëree avantage bi day nekk si ndaamali ndax ki njool sëgg bi da koy sonal dëgg eh, la fleur si ta mu ngay mu ngay waa si ta bul génnaat ah, si ta kaawoon na da boot daan na caatu bambey daan na Caatu Bambey daan na ko waay ndeysaan da ko mbot ndeysaan yàgg maar jaaxle na mbar ma jaaxle na ku daanu da ngay wéet libidoor a ngi noonu libidoor numéro da ngi noonu samp béjjënam di waaj bëre ko ànd naa ki mbokkam ndeysaan ñoom la àndaloon ba muy dugg ba muy génn tam noonu la war a demee ay waay ndeysaan xoolal xale ba yàgg maar nañ ko ca ndo sotteeku na ko ay lam xool kook sabadoor ba mu ngay daw <laughs> mu ngay daw ay waay parce que lii mbooloo mooy doole parce que boo xoolee tey ñi dañoo andiwaale seen bëre accompagnement rek moo ci des pour ñu encadrer leen te yaakaar naa loolu fi mu toll lépp met na parce que ñi fi njëkkoon di bëre tey ñëw nañu nekk ay mag nekk seen gannaaw ak ñi mel ni yow ñi yàgg ci làmb di taxaw seen gannaaw te loolu rek la soxla lu fi manqué woon loolu rek la mais bëre daanaka dañu koy andiwaale fii. Ah, mais ci day dafa saf bawol bari ay mbëri bawol. non loolu maanaam promoteurs yi dofuñu xam nañu kenn mën da nax kenn. ku ne xam na ne bawal bawal yi ñooy feesal làmb ji waaw sëñ Modou Niang nag ñu ngi koy gërëm parce que li mu def ni tey vraiment yónnee wane na ne moom commencé na jàppale 100 pour cent bawal bi daal bawal sans frontière bi. wax na ak numéro 2 la Sénégal bi la waree Wangu Njaan la moom Libidor war a mool un numéro 2 bu gën Libidor tallal na loxo ba arbitre sifflé na 18 heures 20 minutes ah Leewtoo bi sore na xoolal la muy def xale bi wala jat la Libidor numéro 2 Mool 1 numéro 2 xoolal Mali macha allah ñu woon ginnaaw rab noonu Libidor a fees na ndeyjoor jiital tànk càmmoñ Mool 1 jiital tànk ndeyjoor ñu ngi Leewtoo ñu ngi Leewtoo ah meb na mool oo mebat Libidor ak mool oo ñu ngi lewato ñu ngi lewato Libidor meb na waaye demul ñu ngi lewato a sandi na moom mool oo waaye dalul ba léegi ca loxo yàlla dal ñu ngi lewato journée organisée par Mouniang Production le 7 juillet 2019 fii ca stadium Iba Mar Diop ñaari xale yaa ngi leewatoo ndeysaan attention moon on gëdd ko mu taxaw ñaari xale yi neexoo nanu ndeysaan déggal ñu ngi leewatoo waa Ngunjaan ñoo ambi lipitor indi ko kenn noo yeetul Mamadou mool en fëgg na ngemb ñaari loxo yo kon ne lewatoo ñu ngi lewatoo ñaari xale yi mool en jóge Gana Seras ñuy nuyu Gana Seras le grand champion a lipitor door na a mool on rëpp na ñaari batu om yo mu ngi koy jéem am na ngem mu ngay rasu lipitor rasu na mool oñ woon ginnaaw e mu ngi koy jéem a Libidor war na ko ndamba war na ko ndamba daan na ko Libidor daan na daan na ko yàgg maar ba ele sotteeku na ko sotteeku na ko Bombardier nga indi ko mu daan waaw bi ma maa ngi nuyu maa ngi ginnaaw bi ma nuyoo sant suñu ñaari waajur waaw Libidor ñun ñoo ko indi vraiment sama jarbaat la waaw bëre na bore bu rafet dafa sonn ci siñor fu mu ne léegi waaw Bombardier siñor mu ngi fii rek waa dafa ne ci ay tolof tolof waaw muy ñaan ku ko jàppale nag dafa am blessure waaw maa ngi woo autorité yi Ngoundiane yëpp waaw def naa lancé fu ne pour ñu jàppale ma ci blessure bi waaw maa koy maa ngi koy lancé ñëpp pour ñu jàppale ma maa ngi ci làmb ji nag bu ma buñ ma jàppalee ba blessure bi dañ incha allah damay delluwaat ci làmb ji waaw. parce que am naa ci wàll am naa ci wàll. bare na fekk Sa daan fii mobile. yàgg maar mbokki Leewtoo Ablaye Diouf ngi Mamadou Fa. laxasoo na ak Bada Dione. Libido la ngoog. yàgg maar xale baa ngi mu ngi ànd ak Mamadou Faye ngu ñaan la waa mais Libidor pare nga daan sa adversaire combat mu mel ni dafa bëggoon sàcc sa tànk di noo def ba daan ko waaw alhamdulilah rabbil alamin kara maay sant yàlla bu baax di suñu yor sonante bi sallallahu alayhi wasallam sant samay waaju bu baax di sant waa <laughs> waar yàgg maar c'est l'émotion Nguñaan a ngi yàgg yàgg mbokki Leewtoo xale yi daaw nañ yasi xoolal Mali xoolal Mali xoolal ma li doy na waar yàgg maar li doy na waar xoolal ma jigéen ci lamb dem bay daanu yesi li doy na waar waa Ngunjaan a ngi ni waa xurwa mbokki xoolal yaro baax a ci kaw Cheikh Faye Ngom xale yaa ngi noonu ñoom Libidor Libidor daf ma war a wax Libidor ana foo jëm ana fan nga jëm grand bi man dama bokk ci làmb man dama morom dama war a jox samay morom ya ma bëreeg ñoom samay morom yi laa soxla bilaahi mooy sa morom kan ma jox ñoom rek rek bilaahi kooku kan la kan moo dugg ñaan barki nga bëgg ko waaye tin dafa waay sama grand sax moo loolu xam nga kooku du moromam sax bilaahi bu ma sa bëreeg moom mais xam nga nu mu demee la quoi bëgg a wax dañ la dama bëgg ñu jox la mbaytin dama bëgg ñu ma samay morom laa wax père mbaytin bu moor fadam na ñëw borom mboot mi na ñëw ma daan ko bu bi doo du moromam bilaahi naaj ma jox rek rek rek rek bari na dama war a bëre samay morom ñii du ma seen morom dañ may solal fii rek ki ñuy seetaan yéen a ko déggandoo moo ko wax rek rek la soxla ak ñi ni ak mbayti nag ñeneen li bi door a ngoog Ngoundiane la waree bleu blanc Birame Junior nuyu nañ la fay naa la grand waa bi mbër yow tey da sawar de waa tey bi sawar la tey waa lu xew wane sama bopp rek wane war sama bopp sa waay gis na de gis waa garaawul yàlla baax na yàllaa gën a diis ñaar yëpp dañu xëy dañuy bëre waaw ay xale lañ dañoo war a neexal man lii laa wax waaw. ñu gis ne nga fecc ci biir géew. dama di géwél géwél ci ndey géwél ci baay di bëre bëre pire su ma tëggut maa ngi way wala may fecc su ma la déggoo ma damaa def géwél te su ma bëree mu neex waaw xam nga ci dara waaw léegi lu des. ñu ma je suis sa turandoo. sama turandoo mu nga fa. mais nag yàlla baax na jox na ma seekere yi waaw. dëgg li eh, Ibrahim dëgg la mu ñu dem xoolal xelal yi Cheikh Faye Ngok. Ndiaye Tine Ndiaye Tine furno Ndiaye Tine lu ci na may furno Ndiaye lu ci na a ah, furno bi lu ngu njaan la jóge xam nga a ah, waaw o kiino ëppogis ëppogis rek ah moo ci Leewtoo yéen man waxuma ko de mbay ndawaan la ko wax ah waaw mel na li waxit lu am la foofu la jóge dañu faa bokk di ah waaw <laughs> mbay boo yi nee nañ dañoo gëj gis jamu yi ci làmb ji ah amatuñu mbër buy jamu waaw loolu moom amatut parce que gars yi yoolatuñu seen dër yi te mber dër ba day dëgër laaj leen dama leen ko wax dama leen tey bu ngeen naanee posoñ waroo dee mber bu takkoo bu ne jaj bu génnee bu naanee posoñ sax war na dee waaw kii mooy yore tafatit mooy rekri bawol yaa xool champion bi bu duggee xam nga bawol sans frontière gis nga Ablaye Diouf li la koy won ngu ñaar bawol benn la kii mooy indi Ablaye mooy indi tafatin ñi ngay gis ñëpp léegi benn staff bi la njaay xoolal la muy def xoolal xoolal furno ba tey man yaay ay fu ñu jëm fu ñu jëm xoolal su waroon na ko am na lam ci def yëngalaat ko eh, eh, eh. yëngal na bopp waa mais Ndiaye tin lii lan la waa lii bawol la jóge bawol la jóge bawol waaw adversaire loo koy koy wax di ñaan ndam rek ci kawam ñaan ndam rek lay ñaan ci kawam waaw li ma koy wax bëriwul. xale baa ngi noonu déggal la mu wax. waaw ndeysaan mi ngi waxam. moo yor ngemb lu bees ni. ñoom. Kewel 2. Oligans. Oligans écurie Kewel 2 avertir nañ la. écurie Bawol la am nga ban ta commencé guñu kewel talal na ko ñaari loxo yi arbitre sifflé na kewel la nu war ginnaaw Only Dance moo jàkkaarloog ñun ah teel nañu xeex jàppante nañu jàpp nag ci ngemb la am na ngemb moom kewel de kewel lu mu nar Only Gang sang yi jéem jàpp ci ngemb la ca ginnaaw kewel fudd na eh ah eh Only Gang laxasoon na tànk kewel a ngay door mu ngay rokos mu ngay door ci famb ya attention kewel ñu ngay jee sa mu ngi koy a mboot mu bañ a Ali Gangs na ko sees na ko mu bañ la ilaha illallah koli Ali Gangs na bëre waaye kewel de tee na ngembal kewel mu ngi sotti mu bañ Kewel sotti na Oli Gangs moo nu woon ginnaaw eh Oli Gangs mi mu ngay chercher pour daan ko Rose combat bi teel na tànk cër. lay la la biram ñing combat bi neex na. ndeysaan déggal ñu ngay woy Ablaye Wade. ñaari mbër yaa ngi jàppante. jàppante nañu bu dëgër bëre bu neex ndeysaan xoolal Oli Gangs sañu woon ginnaaw kooli ki am ne mooy Kewel 2 moo jàkkaarloog nun ndeysaan ku ci nekk jàpp na ku ne am na ngem ku ne jàpp na si ñoom ñu jàpp dafa dëgër ee yàgg maan sama cameraman bi ana Ousmane ak Kumba ana Aïcha ñaa laa ilaaha illallaah ñaari xale yi xoolal ah Oli Gans mi waay daan na ko wala daan na ko ko waay daan na ko waay Oli Gans daan na ko. madame ñu nga Oli Gans daal na libi. ah Oli Gans ndaanaan la eh, ay waay daan na kewel waay Oli Gans ndeysaan Fallu Faye a ngi noonu wala Fallu Ngom dem na jëli ko xoolal. jandaw na waay Dakar daan ci biir. laa ilaaha illallaah xele bi dafa décidé. kewel jommi na. da ko bet waaru na. ilaha illallah maa ngi leen di fay ci loo nekk ngeen maa ngi sama ruq rek di laamu sama laam moo ko daje ngeen seen ma waaw gaa dañoo ragal wallaay dañoo ragal wallaay bébé mu saane balance ren la koy nar a doog a def ba damay dañ maa ragal ah kan lañu seet si mu ne ñemewul ba rek bébé Saloum xam nga boo limee nees wax Malick ñaa wax Yékini Junior wax Papa Sow wax Ama Neex ku ja wax Sa ku ma ci jëlul nag maa ragal ndax luñ fi def def naa fi lu ko toll mbaa lu ko te ñun ñoo ba a rey làmb ñun ndax dañoo ragalante da ngay seet ci mbër promoteur mu laaj la lu mu mën lu mu war a bëree mbaa muy teggi di taamu te léegi euh, làmb ruq bi baax la amul ci lu sedd nañ ñu jël ñu bërante suñ biir waaw ñii ma la limal nag ku ma ci amul dootuma bëre waaw Yékini Junior Papa Sow Malick Niang Nees Ama Neex euh, Sa Thiès ñi ñooy sama adversaire su ma amul man pare duma pour may benn boy sens pare duma pour may benn boy sens ñaata boy laa fi may sens booy yu danse yëpp ma leen may sens daan leen jat lee ci mujj ci booy yu intense la bokk gis nga li ma ko def ma jox samay morom 22 combats ren laa ma jox samay morom 17 victoire la neuf top cinq nañ ma jël xam nañ leen di xaar buñ ma jëlul lu mu gën a yaa gën ci ñoom mais nag comme ñeme wuñ ma na ma sama ñetti mag yi may chance Bombardier Gris Bordeaux Tapha Tine sama morom ñeme wuñ ma ma ñetti ñooñ may chance nag ñeme naa leen Gris Bordeaux Tapha Tine Bombardier samay mag lañ nañ ma may chance comme samay morom ñeme wuñ ma ñoom nañ ma may chance Bébé Saloum a ngi noonu moo ko wax de bu koy moromam ñemewut ñett la lim yéen a du ma jaar ci tur yi lii balu basket la wala balu lan la man de en tout cas daal lañ ko def ci caa def ko ci bleket xoolal biteel ya ca kaw jëlal catu biteel lu jaune la lii lan la xanaa lii ay limon la wala lu mu doon waa même lii lan la ah, ay bagage la rek ñii di tëmb ci kaw. li du dara ay bagage la rek. waaye lañu war a defaral quoi fils de Zallo moom lañu war a defaral faaw mu demee nii. lii yëpp pour mu saf sàpp rek dama bëgg mu saf xam nga da ngaa bëgg lu saf waaw ñu ñëpp lu saf la ñuy wër ah na saf sàpp rek. saf na sàpp yàgg maar déggal xale ba xoolal bal nee na affaire daa saf de. hee lii moom xor xoral la ak <laughs> mu nga yëngal biteel ba xale baa ngi solu xoolal mbubb ma dañ koo xaatim mu jël biteel ba di ko yëngal ah laa ilaha illallah bleu moo xaw a gàtt eh Moussa ñi na benn Moussa eh bleu fayu na bleu blanc Ngunjaan la ware Ngunjaan joor bleu dooraat na mu koy topp xoolal bleu blanc na jëli ko jàpp na ngemb waa Moussa ñi xamul ku mu am bleu blanc da koy daan war na ko nomba def na trois appuis penalty mu koy dóor bleu blanc ki ci kawam ay waay bleu blanc dana rey Moussa ñi ngi waay daan na ko daanaat na ko boog waaye bleu blanc daan na ko bleu blanc daan na ko yàgg xale bi Ngunjaan la war a yàgg maar waa joor xool ko Fallou Ngom jël si na ko ndeysaan waaye nag bu bawol ba léegi waaw may président aussi bawol mbooloo waaw muy loo xam ne mbégte la ñu créer récemment bawol sans frontière ñu nekk aussi ci membre fondateur yi kon nag nun sant yàlla euh, askan wi daal moo ñu ñor ak lu développé sport bi waaw tey nag nekk euh, journée bu am solo ndax sama mbër Ndiaye Tine mooy bëri grand combat bi ma ñëw soutenir ko pour bu gagné ñu bëggee waaw ndax nun bawol la ñu am jàppale xale bawol yi la ñu am te suñu sañoon nag suñu mbër yi ñuy gagné di am victoire moo tax ñu ñëw accompagner leen euh, ñu ngi préparé aussi nag tabaski tey euh, ren ñu ngi ci suñu dixième édition sur lendemain tabaski ñu nar a tëgg combat yu rëy mu bokk ci lamb yi gën a rëy bawol mu nar nekk ci dixième édition kon loolu nag am na solo mbër yu am maanaan di ci bëre ku mel ni armée bu newraan ku mel ni lomfoor ak booy yu bëree bëri dëkk Touba Toul xanaa kon Leewtoo koy couvrir incha allah Leewtoo moom xam nga ne yow yaay man maa yow xam naa ne su ma ko waxee nga ñëw su ma waxoon nga ñëw kon vous êtes l'invité première waaw incha allah mu ngoog. DG président directeur général jëlal. ñu ngi koy féliciter aussi parce que li mu def am na solo am nga boo ñëwee ci secteur ñëw apporter sa participation à l'édifice dafa am solo surtout nag moom mu nekk un opérateur nekk un promoteur li mu def kontaan nañ ci trop kon Pape Thialis félicitations et nos encouragement kontaan spécial loo mooy bëre moom ak doomu jàmbaar wala jaw doomu njàmbur ngeen baal ma doomu jàmbur. doomu jàmbur moo yor. ah attention moo yor ngemb bu bële bi. moo yor ngemb lu bële li woon nu ginnaaw. spécial loo mooy jàkkaarloo xeex ba teel naa métti. ñaari mbër yaa ngi lewtoo biram ñu. xeex ba teel naa métti doomu jàmbur. Fils de Zale Lo ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo ñu ngi leewtoo doomu njàmbur moo ngi woon ginnaaw Fils de Zallo eh, tax na ko ca suuf eh ñu ngay bare ñu ngi leewtoo ca kaw Rose la fleur eh yaawu jaal na fi waay xam nga yaawu ku ko xam-xam ko nga ko wax président Abdoulaye Wade ak fidélité ba tey buñ ne drapeau delloo njukkal président Abdoulaye Wade Zallo door faaw yaawu jaal dafa mel ni da koo xaw a sàcc njoolaay. mu ëpp taxawaay. jegante nañu attention doomu jàmbur sàcc na arrière mais ñaari xale yi ñemente ñu ah dañoo ñemente ñaari xale yi. Fils de moo jàkkaarloog ñun ñam nañ ko benn fayu na doomu jàmbur. tey nga jël bu rëy ndax ñaari xale yi bëri dañoo am jom. te dañoo ñemente. dañoo nekk ci yoon. te Saalum mu ngi jël tànk ndeyjoor doomu jàmbur teetal tànk càmmoñ. doomu jàmbur ak ñu wan ginnaaw moo ngi moo ngi bu bële bi. doxe wet taxawaat nan ñu ngi lewato doomu jàmbur moo nu wan ginnaaw Fils de Zale Lo moom lay bëreel doomu champion boobu nekkoon fas Crée force tranquille Zallo eh jàppante nañu eh war na ko namba fils de Zallo daan na ko laa ilaaha illallaah xale ba daan na ko doomu Zallo la bi bëre na la nga daan bëre Zal dëgg waay dëgg xam nga moom xale la day jàng rek li ma wax rek ñoom ñëpp ñoo yem man xam naa ne am nañu confiance ci man te li ma leen di wax dañu koy gis à chaque fois moo waraloon jooy sànq nii dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat ci barke Seydina Mohamed da nga naan waa Bawol waa Bawol yëpp am nañ ndam yaa merci kon seetaan nga ko alors léegi nag li ci des mooy fulla ak fayda ak jàppante ñu nekk ci ginnaaw jàppale ñu jàppale xale yi sax lay wax yàlla jëmale ñu kanam incha allah sama ma bëre daan xool ko xoolal ma gis ngeen bagage yi Eh, mbër bu gaañoo bu blessé woo yàgg gis nga médecin baa ngi noonu kii moo fi tooga docteur Ardo le professeur gis ngeen bagage mu ngi noonu de san xoolal waaj ba xale baa ngi noonu Birahim Junior gis nga ko gis ngeen la muy def mu ngay takk jajjiyee ci ndigg bi xoolal <laughs> débat yu mujj yi mais xale bi yàgg maar dafa ànd ak confiance moom du tewul la mu bëgg a def dana ko def gis nga mu koy sotti xoolal biteel ba ey waay ay xoolal Mali xale bi daa sëg mu ko koy sax xale baa ngi ree ey waay Birahim fu ñu jëm ak moom non euh, dafa confiant day ree rek non dafa am confiance dafa am confiance biteel ba ngemb la ngemboo ñoom Ndiaye Tine xale baa ñu noonu xoolal biteel ya lii mooy dernier débat déb te am loo xam ne règlement de ko maye durée de temps mystique ñuy présenté drapeau xoolal ah ah waa bii biteel moom bii biteel moom bi day génn ci ñun déggal li yi seede yëpp sëñ Modou. waaw waaw mbégte rek kontaan nañu suñu xool sedd na parce que waa PDS yëpp ñëw nañu karimis yi ñëw nañu bis bi tey am nañ ci mbégte bu mag boo xam ne vraiment kontaan nañu kontaan nañu vraiment. toujours égal à lui-même. ah oui ah oui toujours égal à avec le président Abdoulaye Wade avec le frère Karim Wade waaw waaw xam nga fils de Zale daa def na baayam daan def. il n'a pas de mérite champion la. xoolal arbitre baa leen di xool. dernier combat de la soirée. suñu neexee ne grand combat bi. la mu mucc jox ko ba mu defaat ko poos ba mbay ndewaan a ngi noonu mu ngi koy fomp morso bu morso xonq boobu moom la rangoo di daw di war moom yàgg maar xoolal Birame Signor ak Ndiaye Tine Ndiaye Tine moo feete sunu càmmoñ ba Birahim jàkkaarloog nun feete sunu ndejoor ñu ngi ca kaw Leewtoo ba kawe na xoolal bébé Birahim la muy def wala Birahim Junior la muy def xoolal Birahim Junior eh xale bi xoolal sànni na benn Birahim Birahim Junior Ndiaye Tine ah Ndiaye Tine sànni na coup perdu daw na dajeeg moom songoon nu jàppante ah kenn ku ne yaa ngay wut ngem. Birahim Birahim ñaari mbëri jàppante na ey yàgg maar nar ndengeñ baa ko ko xañ xoolal mu ngay dugal bopp ba bébé Birahim bañ na xoolal njaaytin door na pour mu sigi xoolal taf na ko taf na ko da ko bëgg a war ndomb sottiwul Birahim bañ na Birahim bañ na gis nga Birahim Junior buy jéem a jàpp ngemal Ndiaye ci nga gis mu fuddu ndeysaan rasu ci bëre la bokk dégg naa gars di ko wax arbitre baa ngi leen di xool magam tafaatin am na tàkku saa ne ci làmb dëgg la Bawol xoolal mu ngi sees mu bañ eh Ndiaye lu mu nar nii Ndiaye Tine attention bébé Birahim Birahim Junior ak Ndiaye Tine Birahim Junior ak Ndiaye Tine jàppante nañu jàppante nañu Birahim Junior Ndiaye Tine écrit ware moom Birahim Junior Ndiaye ware écrit bawol eh eh xeex xeex bu sew xoolal Ndiaye e Ndiaye da ko bëgg a ŋoobu xale bañ nanta la lum ko bëgg a def Birahim dafa jàppagul mu ngay essayer jàpp ngembal attention Ndiaye Tine Ndiaye Tine da koy seesam déet Ndiaye jàpp na sees na ko daan na ko Ndiaye Tine daan na Birahim ay waay bi daan na Fallou Faye kontaan kontaan kontaan Fallou noonu Eh, xale bi daan na ko yàgg maar. doole doole doole doole. dafa war na neexul yàgg maar ba wala ngi eh, mu ngi koy ca bopp ba. laa ilaha illallah xale kontaan nañ doomu ndeyam la sango nañu mbay guy gi ndeysaan Cheikh Mbacke sonn na moom drapeau gaynde njaloor la Ablaye Wade bukki bukki bi yoor yoor la boo ko dàqee sa gétt bul te xam ne dina dellu si waat mais sa mici ngay ngay sax dem ba fan ma borom jamee mi ci raamaan yërëm fara waa di njaag ak daara waa njaag ak yuxum waa njaag waaye maama ma nga gaañ jool tabar gaañ demba may gaañ demba maa far ba yaasin jaañ bii drapeau njaay tin nga jël kenn ku ne xam ne ne bawol njàmbaar yàgg nafa fa bawol fa la teeñ dëkk ñaayu xare yëpp bawol la ñu dëkk Mbari Ngoone Sabel bi nga xam laman la man def cee fu njoogu war naa war a war a war a daje ak lële furi fak buur ba jolof ndax lu ko war waraloon booba mooy laman ba pare ñuy wëlbatiku di jële galak kajoor di ko yóbbu jolof waaye bi doomam jooju màggee mu Mbari Ngoone Sabel mu wëlbatiku déglu li nga xam ne moo xew dafa wëlbatiku dem ñu ni ko laman dee ci fu njoogu foo jëm mu ni damay dem ba bawol jël fa Ngoone Njaay Sabel waali am ci Mbari Ngoone Sabel mi xam wala demoon la bataille de Dank en 1549 kon tey boo ñëwee wëlbatiku jël drapeau bi mu tombeek muy drapeau président Abdoulaye Wade tey ay doomam taxaw ci sa wet muy président honorable Ndeye Ndeye Gueye Cissé mu dend ak Serigne moo Niang dend ak Mbaye Sax dend ak euh, Mariaw waaye dend ak Amina Sakho ak Karim yëpp ñoom ñëpp bokk ñëw kon bii drapeau dañ la ciy félicité ci turu président Wade di la wax nii nag bii drapeau na nga fexe fexe ba indil ko président ndax li tax tollatu fa sax ndax kenn ku ne xam na ne président jaamu yàlla rek la bëgg waaye nag jamono moo toll foofu mooy kenn ku ne Abdoulaye Wade dafa bëgg ku jàmbaare. waaw ginnaaw ba ma jullee ci yonen bi sant sama ñaari waajur waaw di sant waa bawul gépp nag tey gis naa ni ñu ma taxawoo gis naa ni ñu ma jàppalee Bawol gépp taxaw ñëpp taxaw entraîneur yi Bawol yëpp ñëw sant naa leen bu baax a baax a baax a baax a baax képp koo xamante nii jàpp nga ci combat bi daal sant naa la bu baax a baax a baax waaw li ma bëree eh, conseil yi laa bëree rek damaa ñëw tey sama bopp xam ne ma waa ji doole ñàkk ko jàpp jàpp bu baax rek ne bu ma ko jàppee lam ji jeex loolu leer na fi mu toll nii moom dama booy ndaw yi moom pare naa nañ ma jox ci ponkol yi ma defante ak ñoom ëpp ñu ma doole mënuñu ma tudduma ci kenn ku ñëw baax na ci ponkol yi bari nañ fi waaw ku ñëw rek pare naa pour bërëg yow waaw yéen a ko gisandoo Ndiaye Tine daan na ki nga xam ne moom mooy Birahim Junior ñu ngi encouragé Birahim encore une fois di ko félicité ki nga xam ne moom mooy Ndiaye naa ko ku daan ak ki daanu ñoom ñaar ñëpp lenn li lañ bëggoon muy ndam waaye tey bawol la ko yàlla jox kon mbokk yi Leewtoo nii la demee Fallou Faye bawol sans frontière tey bawol bari nay ndam. waaye violence kon nañu sportif ku daan tey suba xamal ne daanu mën naa ñëw ku daanu tey xamal ne suba mën nga daan kon kontaan nañu lamb ji am na solo. amut benn violence te lii la ñuy ñaan di félicité nag ah sunu mag Serigne moodu Niang ci taxawaay bu rafet bi Ndiaye aussi sama mbër maa ngi koy félicité waaw ndax moom mbokki Leewtoo Fallou Faye nii lay tëjee